Bakary Domingo Mané ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay fay euh, Elisabeth. voilà ñu waxtaanee d'abord ci li xew jamono ji muy violence politique nemmeeku nañ ne fu nekk ñun ñaa ngi yëngu Kédougou Dakar Ziguinchor tey jii nan nga jàngatee lu ko waral d'après yow. man daal li ma li ma seetlu daal mooy d'abord violence électorale du gulet en Sénégal depuis que Sénégal euh, am élection ba léegi donc euh, avant même les indépendances pendant les indépendances ak léegi donc violence électorale dafa mus a am surtout à l'approche des de la campagne. électorale mm. donc du guleet maintenant euh, man euh, gisoon naa ko euh, affaire bi ñëw parce que depuis bu ñu institution disons la l'inscription sur les listes électorales mm. coow luy baroon na trop trop trop ñu xam nañ ko surtout avec ce qu'on appelle le transfert des électeurs donc amoon na coow lu bare bare bare maa ngi fàttaliku comme hier bi Barthélemy demoon Grand Dakar di nemmeeku gis nañ policiers yi kii dem dem Ziguinchor waa Duduka ak ñoom Pastef donc donc loolu yëpp man xamoon naa que vraiment fii la ñu mujje donc euh, euh, en tout cas man daal bettu ma woon ndax violence bi lu war la tey ndax ah. ñoom gis nga ne ku ci nekk yaa ngi ciy jouer sa partition pour mu mën a dal ñoom ñi parti ah. xam nga xam nga violence ci boppam warul warul dans une démocratie parce que euh, boo jàngatee ñu réfléchir si dans le domaine politique dañ leen ne euh, politique lu ko mooy action ak parole mhm. donc euh, su fekkee amul parole c'est-à-dire que amul kaddu boo xam ne dal mun na tax les leaders politiques di waxtaan seen biir di waxtaan di di di di diisoo donc loolu bu amoon en principe benn violence vraiment am fa ci place mhm. mais boo gisee tey différence bi am am am am am doole c'est que um, notre classe politique du ñu waxtaan seen biir mhm. yaa ngi dégg ma j'interpelle aussi les médias parce que ñoom tamit amuñu aménagé wu benn plage boo xam ne daal dañuy mettre face à face deux leaders politiques yoo xam ne daal dañuy euh, dañuy wax des questions euh, des questions des questions liées à leur programme à leur vision mais la plupart des temps bu ñu en politique pour le faire réagir sur les propos d'un autre affaire yooyu donc loolu jëmul vraiment euh, réew mi ci kanam je pense que désormais il faut qu'on instaure culture ku culture dialogue tant que loolu amul moom violence moom dina am tey jii ñuy waaj ay élection ñuy sulli ay dossier judiciaire ndax li ni mel tamit taxul ñu gën a yokk coow mi mais justement loolu day gën yokk coono day gën yokk coono parce que xam nga élection dafa war nekk période bu dal la bu ma nee bu dal c'est-à-dire que su fekkee administration liggéey na liggéeyam c'est-à-dire que te di njaaxanaay mm. parce que moom moo organiser élection yi euh, te di njaaxanaay ku nekk nga nga jox ko gëddëm vraiment problème du am mais su fekkee yow yaa ngi si calcul wi sew Eh, parce que simplement yow yaa nekk ci nguur gi nga nga nga nga instrumentaliser yenn yenn membre justice parce que du justice yëpp parce que juge yi du juge yëpp mhm. juge am na ñoo xam ne vraiment marqué tan yi juge ñoo xam ne am nañu jom ragal nañu yàlla par contre am na ñoo xam ne dañu gérer seen carte seen carrière donc bu boobaa su fekkee vraiment yow da nga nekk di calcul yu sew di di instrumentalité ay ay ay juge bu boobaa vraiment euh, vraiment euh, disons violence bi euh, mënu fi jógee et malheureusement le fekk ñu sulli encore dossier Barthélémy Diaz pour man de justement urgence bi normalement bu ma nekkoon seen place dañuy damay bàyyi ba élection jàll puisque déjà ñoom dañ ko investir euh, comme candidat tête de vraiment yeewu coalition yeewu askan wi je ne vois pas l'urgence vraiment ñu sulli ko ah donc euh, le fait que ñu sulli ko évidemment euh, Barthélemy ak seen ak seen ak seen natango wala euh, une partie de l'opinion pense que dañ ko def rek parce que comme comme dañ ko dañ ko def tête de liste moo tax ñu sulli dossier boobu donc c'est purement politique d'après lu ñu wax mais dans tous les cas on est nous nous épargner tout ça vraiment dossier boobu pour le moment ah, bàyyi ba si kanam parce que contexte bi contexte bu baaxul vraiment si loolu. ci contexte googule sax mu wax mu gis ay wax yu ñagas yi nga xam ne dañ koy nemmeeku ci ñoom ñii di def politique ah, ndax tey lu ñuy xaarandi si ñoom la. xam nga euh, politique dafa am euh, langage boo xam ne daal c'est c'est propre à la langue euh, pardon à hmm. dire que domaine boo gis rek am na même boo journaliste boo jëlee journalisme am nañ suñu jargon c'est-à-dire suñu wax bu ñu waxtee suñu biir euh, keneen koo xam ne nekkoo journaliste doo comprendre lu ñu wax. c'est exactement pareil vraiment dans le. dans le milieu politique non mais saaga ñëpp a ne dama la bëgg a wax ne d'abord. Mm. y a un discours boo xam ne daal c'est lié simplement vraiment à la politique donc on peut le comprendre maintenant su fekkee euh, euh, un politique dafa bëgg a adressé au au au aux citoyens. Mm-hmm. aux militants à la cible donc li mu wax. Euh, jëm euh, disons si si si cible électorale xëy na du nekk du du méngoo ak lu muy wax n'est-ce pas jëm si euh, disons si adversaire am mm-hmm. donc généralement su fekkee moom dafay agressé si adversaire am day day élever la voix de utiliser parce que day jouer la carte n'est-ce pas du guerrier en faire peur xam nga le le fait de faire peur ça fait partie du jeu Mais euh, euh, je pense qu'il faut savoir raison garder en se disant oui il faut faire peur c'est vrai mais mun na am conséquence boo xam ne daal parce que am na militant ak sympathie yoo xam ne daal xëy na amuñu culture boobu. Mhm. boo moytuwul lu ñu gars yi di wax ci kaw ñu ñoom ñu jëfee ko n'est-ce pas sur le terrain et loolu mooy danger bi. mbiru Barthélémy Dias yaa ngi koy wax sànq tey euh, ñoom ñu dégg leen ndax tey euh, waroon na. Sonko gisoon na urgence moom ak ñoom Gakou ak ñoom ñeneen ñi ñu gungee Barth te ci beneen wet ba tamit ndax kii di euh, Jatara waroon na génn euh, comme discours am bi nga xam ne euh, maar day taali kenn xaaru ko woon ci moom mu def genre discours yooyu le D'abord euh, le fait que euh, Sonko Malick Gakou ñoom Khalifa Sall ñoom Déthié génne gunge Barthélémy lu war la c'est-à-dire que parce que Barthélémy mooy candidat coalition yeewu askan donc fu muy dem surtout bu amee tolof tolofu mel ni il faut que mu xool si wetam est-ce que nit vraiment gis na gis naa euh, euh, ñoom Sonko wala déet hmm. donc loolu la ñuy def keroog euh, démb hmm. et pour man c'est tout à fait normal que vraiment euh, li le leader nest de la coalition jour la carte nest de la de la solidarité yaa ngi dégg hmm. donc mais maintenant euh, quant à Parce que dans ces pays, quand Diatara dit, moi j'appelle vraiment à la riposte. maanaam c'est c'est voilà moom dafa bëgg a euh, disons euh, euh, jeunes jeunes camp de de de du pouvoir. Mhm. riposter par rapport à ce que Barthélemy a dit parce que Barthélemy dafa dama bëgg peuple bi gunge Euh, disons euh, euh, disons fallait parler de justice mais alors bu bu bu bu ne léegi man daal dama bëgg ñu dañuy riposter mhm. mais da ngay mel ni boo ne riposte rek ça veut dire que am na attaque or dans ce cas d'espèce amul benn attaque quoi de plus normal dans un pays que leader bu jóg mu ne gunge leen ma parce que damay dem wuy ji li li nguur gi war a def mooy jël takk der yu moo ñu ñu couvrir pardon ñu ñu ñu encadrer n'est-ce pas euh, marché boobu vers vers le Paris loolu la ñu waroon def mais defuñu ko après euh, duñ nañu vraiment les ingrédients euh, d'une situation explosive heureusement que dem ba vraiment yàlla moo si def ndox bu sedd parce que kenn xamul gis nga njëy euh, ku ko ku koy wut rek moo xamul la la la lay doon donc c'est pourquoi man dama comprendre lu tax nit ñi ba léegi euh, vraiment euh, surtout les responsables politiques parce que quand tu prends le cas de jatara Diatara si il vient d'être nommé ministre il est nommé ministre certainement xëy na foogu ko woon et il pense que euh, la meilleure façon vraiment gërëm euh, Macky Sall c'est vraiment montrer que euh, moom il est prêt à se sacrifier or moom gisuma ko dem ba est-ce que moom dem na euh, puisqu'il avait demander au riposte à la riposte est-ce que moom est-ce que moom dem na ci terrain bi wala déet mais l'un dans l'autre pour man discours yu mel noonu dañ ko war a moytu yaa ngi déglu ma surtout ñoom dañu ay responsable lañu. Mhm. il est ministre la république il n'est pas n'importe qui donc dafa war a xam lan lay wax et la portée vraiment de son discours donc loolu je pense que une fois de plus man li may ñaar ñi ñaax vraiment classe politique bi euh, politique c'est vrai ku nekk da wax sa xalaat mais loo xam ne daal nga wax ko mu lor askan wi loolu amul benn solo mhm. et nit ñi dañu war a moot loolu wax ci dépôt de liste yi gis nga ni Yewwi am na ci ay gox yoo xam ne seeni liste euh, dañ ko rejeté tey euh, cour euh, d'appel daal di ñëw wala sax justice daal di ñëw andi beneen dogal nan nga jàngatee mbir mi waaw pour moi dans une démocratie mun naa ne gàlce ngaalama pour moi c'est une très bonne chose parce que nit ñi bu ñu la tegee dara yow am nga recours voie recours te euh, voie de recours yooyu moom la koo xam ne daal il s'est il s'est senti vraiment si euh, dépolice bi moom la ñuy def gis nañu yeewu askan wi fale ñoo xam ne la vraiment am nañu am nañu ndam si loolu parce que euh, président tribunal bu bu Saint-Louis moo ne disons administration territoriale que dañ war a càmbar la liste dañ ko war a waruñu ko dañ ko war a càmbar mais càmbar bi justice warul ne que dañ dañ ko a euh, validé non non non càmbar bi mooy dañ koy càmbar su fekkee administration territoriale s'est rendu compte que vraiment euh, amul ñu lu reproché disons si bi bu booba ñu bàyyi ko mu la mais su fekkee euh, ñu càmbar ko ñu gis loo xam ne la dafa dafa méngawul ak li code électoral wa bu boobaa l'administration territoriale a tout à fait la légitimité pour mu rejeter loolu donc il faut que nit ñi def attention ce n'est pas parce que cour cour sup euh, parce que justice dafa ne jël leen liste bi càmbar ko que ça signifie que dañ ko war a valider non affaire validation wala invalidation loolu du coobare justice coobare coobare administration bi la donc euh, li li justice lu mu laaj gars yi maanaam euh, da ngeen rejeté vraiment euh, liste bi wala vous n'avez pas donné l'opportunité yenn gars yi vraiment déposer seen liste dañu leen jox opportunité bi ñu déposer ko ensuite maintenant le travail de la justice s'arrête là le reste vraiment administration territoriale moom moo xool est-ce que c'est conforme au code électoral ou non caw li bëri na doo xam naa looloo tax ñu bëri jàpp ne dañoo war a wala sax yenn observateurs yi jàpp ne dañoo war a ajandi élection yi ba jëmmi jamono lan nga euh, jàpp si wax jooju ndax ànd nga man daal xalaatu xajandi élection yi loolu du xalaat bu baax hmm. parce que man gisuma lii li li nekk justement loo xam ne daal euh, vraiment mun na nekk argument bu la boo xam ne la am na am na am na maana euh, bu war a to tax vraiment ñu ajandi élection yi parce que su fekkee tension la ñu wax tension dafa dafa mus a am vraiment à l'approche des élections te du du gulet ce n'est pas parce que dañu gis tension depuis euh, ay weer moo tax dañ ko war a ajandi donc su fekkee loolu mooy projet ñeneen ñi moo tax ñuy créer les conditions du chaos loolu vraiment euh, c'est ça va être une chose regrettable et mun na nekk pour moi de mon point de vue un échec euh, vraiment total je pense que fu ñuy xaar administration puisque moom moo war a euh, disons euh, ministère de l'intérieur moom moo war a euh, disons gérer élection yi fu ñu ko xaar mooy na tëdd njaxanaay ku nekk yow sa sa sa sa sa sa sa droit ñu jox la ko sa gëdd ñu jox la ko ku nekk fu nga war a nekk nga def li nga war a def donc bu boobaa vraiment bu ñu ko defee bu ko organiser dans la transparence benn problème du am ni ñu doon nemmeeku Sénégal moom la ñu waat maanaam nit ñi dañuy xëy woote élection ñu commencé liggéey. ñu lay jaajëfal bu baax a baax Domingo Mané. maa ngi leen di fay.